yóbbu na ña ngeen nii rek fa mbaxana nekkee benn mu ngi nii dagati nañ dil nag diggante Sénégal ak et c'est un magistrat qui va recevoir sa plainte lui un ah, magistrat qui normalement doit être solidaire ak ñi nga xamante ni ñooy corps de contrôle yi oo yow of nag bii lan moo fa jëlee ndaw sa nekkoon du coowal Petro-Tim exact Petro-Tim bi nga xam ne nii rakk tonton ci boppam lañ gëm baaraamu tuuma Aliou ñuy woote fii ay ay ay appel en témoin gars yi dem dik toog ñu leen di tagal ataaya fan la mujjee dañu xëy ñu naan ay non lieu doo mujj fenn xanaa bu fi mag ji jógee waaye du la tax a sedd réew mi quotidien ci hmm. ñàkkob kaaraange gi ci réew mi mission bu bu doy takk der yi nekk waaw yii daal ñàkkum kaaraange ak bavir seen acca réew mi moo la ñor moo tax nga jeexalee réew mi noonu waaw ah. baax na yaay monsieur ah. na <laughs> tabarkalla ba kañ. ba suba. ba suba kay. ah tey kii amul. kañ. hadis. hadis vendredi la ajjuma ba ajjuma. man man léegi xanaa xam nga damay commencé di daw. waaw <laughs> ah, mais mais mais euh, Ahmed nag il faut ngay ñëw samedi yow tamit samedi dañ lay nam nga ñuy bàyyi ni ñuy géey noonu non non ay dara karaara foofu bu fa dugg ma punkal mi di la dee. <laughs> waaye li nga xam ne loolu lay fexe. kon daal samedi daal daal ñu fas yéenoo ñëw daal. wallaay xam nga ku dem ba am doom ju toll ni mantulaay. xam nga kooku say ndoxu oom jeex na. Eh. am jarbaat bu toll nii. bigi ay dara karaara moomu ak bigi. Eh. kooku xam nga deseetoo dara. Eh. ndeysaan ndeysaan waaye nag hadis yi day nekk suñu plus pour euh, ñu mu gungee ñu ci weekend gi ndaxte weekend bi moo xam nga weekend ñëpp dañuy relax donc buñ la bàyyeeg benn xiste rek da ngay daal di fàttali li nga xamante ne mooy sa yoonum diine mm. parce que il faut rappeler aussi que le Sénégal est à quatre-vingt mani weekend bi daal bu leen ko ci boole non vendredi bi man xiste bi laa lay défendre ni ah, tamit. waaw ah? vendredi sax maa xool nu ma koy leb. ah déedéet déedéet ah, Ahmed Ahmed boo fekkoon ne tey ci ngoon président Macky Sall woo na la ngeen toog lan nga koy wax. kan. tey ci ngoon bu la woon ngeen toog. lu ma koy wax. Mm. ci dëkk bi ak li fi xaw yëpp. dëkk bi man de am naa ñaar yoo xam ne priorité la mbay mii ak wàllum napp mi. wàllu. na napp mi. ok napp mi yow gis nga fenn foo xamante ni nii nappkat yaa nga fa rek mbir mi sedd ni guy. du géej ndar. métti du mbuur. du marché central poisson bii ci Pikine. du ndakaaru njaay jël mm. te napp ak mbay mbay nga xam nga. gis nga suñu suñu étudiants yi ak suñu même te loolu politique état bi la quoi. Mm. dafa mel ni ñoom ñoom ñoo ko tey. suñu étudiants yi tamit keroog maa ngi koy wax ay étudiants ma ne leen man li ma jaaxal mooy dëkk bu nekk. ak yow sa contexte réew li mu laaj xam nga chinois yeeg japonais yeeg ñooñu en matière de technologie nangam sangam ñooñu bu yeboo seen doom yi rey ci seen bopp. mais su ñu étudiants yi ak suñu universitaires yi nañu rey seen bopp ci njàng mi ci wàllum mbay mi. Mm-hmm. mais da Ibou dañ leen. mais bu fekkee dañ leen ci pousse. banque finance. communication. Mm-hmm. technologie. Mm-hmm. banque finance. man <laughs> journalisme banque finance. Mm-hmm. communication. waaye déedéet. banque finance. transport logistique fàtte nga. transport logistique. <laughs> logistique bi port port a ngi toj. port mi ngi toj. xale bu jóg nekk stagiaire nekk fa. ak RH. <laughs> mais dañ mais dañ leen ci war a pousser nag quand même. xanaa xamoo jàng bi sax dañ ko war a changer. li ñu am ci dëkk bi ni muy évoluer lu bëri dañ ko war a changer. waay yow sa waay jàngi bay. jàngi napp. amee déggoo ma de jàngale ministre. nga gis ci benn boo xam ne moom monsieur la. non à moment mën naa nekk ministre. ci nguur gi waay waay bi gi déglu ma expliqué la. Hmm. benn xale bu ndaw ngay gis mu nekk étudiant génn bees tàq. Hmm. nga jox ko benn hectare bu ndaw. Hmm. mu dawal fa cinquante nekk milliardaire. dëgg la lu wér. parce que da koo jàng bokkul ak baykat bi nga xam ne dafa yor saako gerte ñëw rek. dóor mu dem. xale bi jàngal nañ ko pluie artificielle. xale bi jàngal nañ ko euh, mbayum dër. jàngal nañ ko mbayub hors saisonnier yi noor. noor noor noor. loolu yëpp xale bi dañ ko koo jàngal day génn day ñëw di pratiquer affaire bi mel ni ndox. waaye transport logistique. <laughs> banque finance. communication le le message bien passé il est très bien passé. wuyu ma de Ahmed. Ah, ma ne ko à tout moment mën ngaa nekk ministre. kookan la yow. non ñun pour l'instant ñu ngi feneen. non ci nguur gi laa wax à tout moment mën nañ la faa woo nga nekk ministre de. déedéet déedéet bii baaxul. i ay dara la sant nag ak a diñ. yow tamit. Ah, xam nga bii gi. Ah. gars yi ma wax la benn affaire. waaw hmm. gars yi dañuy créer mouvement. Ah. dañuy créer mouvement wala parti politique. ok woo nit ñi am deux 200 personnes 300 mbooloo mi ñëw nga def conférence de presse mag ki gis la. mais hmm. ah kii kat dara la géej waaye commencé woo la nga waaf parce que looloo nekkoon sa objectif. ok hmm. ñun dañoo bëgg non seulement cohérent Mm-hmm. waaye tamit constant. Mm-hmm. nekk ci génnuk mbir. Mm-hmm. présidentiel yi jaar fi. dégguñ la nga déclaration. référendum jaar fi dégguñ la. député jaar fi dégguñ. li tax ñu créé loolu daal bu lëf la yegsee. nit mënul fexe ba duñ bëre. non non ci ci ah, ah, géejawaay je souhaite pleinement nga gagné ko incha allah. non na ku ne gëm sa bopp man de li ma li nga ma dig bu agsiwul danaa dem ànd ak lu gàtt li. incha allah. di ko ñaanal yàlla li ngay mbëbët daal yàlla la ko yàlla may. ndaxte bu dee askan wi euh, ci diggu xol bi la nekk moom wax ah. dëgg yàlla yàlla da la koy yombalal ndaxte tamit. nag sëtu yonent nga sallallahu alayhi waaw kay ma di leen jaajëfal bu baax a baax di mm. ko jaajëfal moom Ahmed Aidara lii gën a fës ci bopp yéen faram fàcce bi leer na nañ. Mm. Eh, te eh, digle yi tamit nag eh, jàpp nañ ko ah dénkaane yi. Mm. leer na nañ di la jaajëfal yow Rokhaya. merci beaucoup Asma merci beaucoup à vous tous ah yéen ñëpp di leen jaajëfal encore une fois ak fidèles téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo jàkkaarloog seen émission suba teel di leen jox rendez-vous à demain incha allah. à Ahmed kon ba suba. waa ba suba incha allah. waa kay jërëjëf Biggi. waaw kon di remercier ñi toogoon di ñu seetaan ndax seetaan moom wax dëgg yàlla métti na neex na mais aussi j'espère jëlee ngeen fi xam-xam mais seen xol sedd na. bàyyi woo ngeen jàmm rek ñun tam transmettre nañ leen ko Mbaye Sow nuyu naa la di nuyu képp ku toog di seetaan ba suba incha allah. Paa San ma di la jaajëfal. Sénégal ñoo far. yàgg na dana asma di la remercier bu baax ah, di euh, plaisir la ah, di partager ak yéen plateau bi ah, ak saa su nekk ak Aïdara Chérif mi nga xam ne fekkante fekk moom baax la ngëneel la ci sama journée donc di leen jox rendez-vous demee incha allah mu gunge waat leen euh, ba Yacine ñëw incha allah. incha allah Yacine nañ la qu'on salue au passage charmante. merci de nous avoir accompagnés lors de cette édition di leen bàyyi nag avec la bonne suite des programmes de Sen TV waaye di leen fàttali ni mën ngeen télécharger application bi App Store wala Play Store selon rek application bi ngeen di yor ci téléphone bi ngeen di yor wala bokk mën ngeen jàpp Sen TV ci seen biir kër yi wala ngeen dem follow page Facebook bi parce que on dañuy def ay live yu toj bu ko defee ci live yi euh, mën ngeen euh, participer ci émission yu bëri mën ngeen wax seen xalaat mën ngeen joxe seen ay avis wala seen ay appréciation dafay am solo loolu ah, ci noonu laa leen di bàyyi rek ak euh, Mantoulaye mu ñëw fas yéene euh, waxtaan leen ci waxtaane ko ci thème boo xamante ni daal macha allah dina leen jëriñ euh, bu ko defee nous on vous retrouve demain dans une autre édition de la semaine bye bye.